www.sangatv.com. dañuy euh, njëkkee ak euh, anniversaire u sama benn doom xaaral ma xool ma vérifier ma regarder voilà bu ko defee ma mën leen a jox euh, sama turu doom joojule mu ngi tudd Fama Cheda 6 alors Fama tey la am 5 ans ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire c'est de la part de yaayam Yaf Fanto Sanokho 6 moom mu ngi nekk fi nga xam ne ni mooy Sénélec alors c'est de la part aussi de son papa ak toute la famille ak ay nijaayam kom man moom euh, Fama Cheda 6 euh, ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire c'est de la part de maman Yaf ak euh, toute la famille tey jii lay célébrer lay fêter anniversaire ou la anniversaire bébé Mohamed Lamine Bass Fall euh, Mohamed Lamine Bass Fall tey la anniversaire am anniversaire longue vie c'est de la part de sa maman Koumba Ndione euh, Koumba Ndione Diem c'est aussi de la part de benn tonton Chant photographe Chant euh, donc Chant nee na mu ngi souhaité joyeux anniversaire ki nga xam ne ni mooy bébé Mohamed Lamine Bass Fall euh, longue vie à toi joyeux anniversaire à Mamito euh, Madame Kairé longue vie à toi avec Asito beaucoup de bonheur joyeux anniversaire c'est aussi de la part de voilà Mam Femme Yams ak toute la famille Joyeux anniversaire à Binta Diop depuis Paris euh, souhaite un joyeux anniversaire à son homonyme sa petite fille Mam Bintaba euh, nekk rue 15 voilà donc moom mu ngi tudd Binta Diop euh, Binta Diop la tudd voilà euh, defe naa gelu père Assane Ndong la <laughs> ouais. ok la. waaw ah, suñu gelu papa la. suñu yaay bu ndaw la juste juste waaw. <laughs> Euh, voilà gelu gelu père Assane Ndong la <laughs> ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire c'est de la part de père Assane Ndong euh, bu télévision Futur Média Binta Diop euh, moom mu ngi nekk Paris beaucoup de bonheur pour moom. joyeux anniversaire à Thianeba moom tamit mu ngi France on te souhaite tout le bonheur du monde c'est de la part de tes amis joyeux anniversaire à Bintagna longue vie à toi c'est de la part de sa maman Loti Seck. joyeux anniversaire à Astou Diop c'est de la part de Doudou Sow Thiès ak euh, toute la famille Diop depuis Tivaouane dëkku Exidex joyeux anniversaire à Amadou Diop euh, nekk Sicap Liberté 3 3 on lui souhaite beaucoup de bonheur joyeux anniversaire à ma chérie ma Eva euh, beaucoup de bonheur de la part de Tafa Ba joyeux anniversaire à Miss Sow Miss Sow joyeux anniversaire joyeux anniversaire à Nogay Mbaye euh, journaliste FM Sénégal joyeux anniversaire à bébé Amina Sow longue vie beaucoup de bonheur c'est de la part de ta Thomas ta Badiane donc Amina Sow elle jolie euh, defe Amina Sow bu ma aussi c'est le dé voilà ah. euh, moo koy moo koy anniversaire en fait voilà donc c'est de la part de sa Badiane Amina Mao Cissé muy bébé Amina Sow joyeux anniversaire à ma de cœur la reine du jour maman Ndiaye yaayu Yacine euh, chéri Habib Diop kii jabaru Pape Samba Thiam la am mhm. ah, mooy ginnaaw toolam. Mhm. ginnaaw toolam waaw ah, xam nga ji gi sa tooy ginnaaw toolam. wala déggoo lii yëpp lii <laughs> donc ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire euh, moom euh, la reine du jour maman Ndiaye ku baax euh, Yacine mu ngi lay euh, gërëm moo yaayu Yacine Thiam nag. donc on lui souhaite beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de bonheur c'est aussi de la part de euh, borom këram Habib Diop euh, donc maman Ndiaye yaayu bébé Yacine joyeux anniversaire c'est de la part de monsieur et madame Thiam Pape Samba a ki nga xam ne ni mooy Aïda Ndiaye suñu bos. suñu yëf mhm. <laughs> wala Vogues joyeux anniversaire à Aram Dieng longue vie beaucoup de bonheur donc pour Aram Dieng joyeux anniversaire à madame Ndiouk Euh, Khady Didi bu Prince Art ah Khady tey la anniversaire am. Oh, anniversaire elle adorable Khady Didi euh, voilà moom ci njabootu Ngoné Ndour la bokk. Euh, très adorable tey jii la anniversaire am c'est aussi de la part de ñoom Mama Teni. Uh-huh. ak ñoom Famara Fabrice gars yi nga xamante ni ñoo nekk Prince Art Ibou Ndour Tata Ngoné donc Khady Didi joyeux anniversaire et beaucoup de mm-hmm. bonheur. joyeux anniversaire à Maman Fall euh, depuis Parcelles Assainies c'est de la part de ton mari ak Khady Bijou. alors j'en ai plein plein d'anniversaire euh, sama bosu euh, petit frère bi gën a sob si kër gi gën a lakkale gën a mooy xale yooyu nga xamante ne daal ñoom ñooy gën a rakkaaju ci kër gi <laughs> sonnal ñëpp mais euh, li ma neex si moom mooy day jàng donc happy birthday. Maman Fall ngi ngay souhaiter joyeux anniversaire. déedéet ah da ngaa yëkkati sa loxo bon pare guñu. ah émission rubrique la ci biir ci biir maman Fall joyeux anniversaire depuis Parcelles Assainies c'est de la part de son mari joyeux anniversaire à mon frère chéri euh, Modou c'est de la part de Mbata euh, euh, Mbata papa <laughs> du wan naa leen bindu Pape Pape Doudou yeeg aji Diop ak waa digital. comme ay vermicelle coincé. ni ñu may bindalee moo tax du ma mën a lire. donc joyeux anniversaire laa juma la Alfi à euh, euh, Mbata Papa euh, et toute la maison. j'ai rien compris. mais joyeux anniversaire quand même. c'est de la part de ta Mbata. oui. mais pourquoi ñu defaral ba Mbata. parce que dañoo yebaate. anniversaire Modou Ndiaye la. mais la tax ñu bindal ma mais quand même. ah càmmiñu satu <laughs> Modou Ndiaye ñu ngi ñëwaat ci yow léegi nii yow beral ma photo ñu doog ñu ñëwaat ci Modou Ndiaye ah, euh, joyeux anniversaire à Yacine Niang madame Lo euh, longue vie à toi joyeux anniversaire à Mame Astou Touré euh, madame Mbacké depuis Touba c'est la part de soxna Fati Mbacké donc Modou Ndiaye te l'anniversaire beaucoup de bonheur c'est de la part de Tabata Tabata mon <laughs> papa xale yi toute la famille donc moom mooy xale bi gën a lakkale ci kër gi hmm. espiègle ba nga xam ne doo comprendre ah tuuru kër gaa ngi waa kay mais euh, day jàng donc loolu moo tax lu mu def dañ ko koy mun pardonner donc happy birthday à toi longue vie loo bëgg yàlla nu ko yàlla defal te nga bàyyi yàpp sa mag yi voilà voilà mu réglé tuuti donc Samba yeneen anniversaire yi am na ko anniversaire de Sambay donc euh, de la part de sa femme Thioro euh, depuis Mboro moo koy souhaité un joyeux anniversaire et puis happy birthday à une petite sœur qui est à Paris Fat Bintou Sall donc longue vie à toi et puis Mamadou Moustapha Samb aussi c'était son anniversaire hier maam Seynabou moo koy souhaité son papa Clédor maam May toute la famille sa maman. voilà joyeux anniversaire oui. oui je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille. Voilà. C'est l'anniversaire de ta fille Oui, Maria-Sophie. Juste, oh. Voilà, c'est la oh. photo là-bas. Donc, la euh, copine Amado. Voilà, c'est pour cela. Je voulais, parce que oui. je sais qu'elle va adorer, donc je laisse euh, Amado. la parole, parce que c'est la première fan de Mando. Ah. donc euh, elle, c'est ma petite prunelle. parfois au salon me faire des coucous. Elle adore la vie, elle adore la beauté, elle aime tout. Ah, elle donc euh, vient, quand elle vient, en vacances. Donc euh, on peut même la suivre sur Instagram. Elle, c'est une future star. Ah. Donc je lui fais un gros coucou, je l'aime fort et je lui souhaite un happy buzzer. Comment on le dit du jour en italien ah. Auguri. Auguri. Tanti auguri. Tanti auguri. On chante pour elle ah. Oui. Mm. Tanti auguri. Tanti auguri. Tanti auguri. Tanti auguri. <laughs> lu Alassane Samba Diop nangul Mamadou Ibra Kane nangu ko ah, noppi nañ la yàlla dogal bu du ngeen du ngeen tàmm ndayam para para rek lay fowee kat lay dawal dox para para dawaatal ma xool bi tàggoo caafaas dikkal euh, caafaas xale su ndayam caafaas kat kat lay dawal. jaafaas dikal jaafaas. yeewu leen lay defee. jaafaas dikal jaafaas. ex lay toogal. jaafaas dikal jaafaas. jaafaas. bon ñu tàggoo euh, jeexal yeewu leen bi tey dellu si waat euh, suba euh, dès 7h merci Exidex. merci Pape Cheikh di remercier Baye création foofu ca Maris. donc tey Baye fi ah, jaar tey Baye la Baye sama xarit. donc moom ah oui Baye moom yàgg nañu yàgg nañu mag moom c' est un frère hormis sax yére yi. c' est un frère donc maa ngi koy nuyu di nuyu Soxnaam nuyu doomam sëñ Fallou defe naa voilà sëñ donc maa ngi leen nuyu bu baax foofu ca Maris sinon demain on revient. bu soobee yàlla. merci Chiara. merci à toi et merci à tous les collègues qui m'ont accompagné dans ce se réveille, on la semaine prochaine. Mm -hmm. si tu veux. Inch'Allah si tu le permets. Inch'Allah je serai là bu soobee yàlla. merci Mado. allez après-demain Pape Cheikh et merci encore. kese. rek amul problème d'accord euh, merci Mamadou Ndiaye. merci beaucoup Pape Cheikh euh, un joyeux anniversaire c'est Mor Bassigna journaliste bu nekk record fii ci euh, journal bi di record mooy souhaité à sa sœur Rokhaya Nia un joyeux anniversaire mu lay souhaiter beaucoup de bonheur santé de fer prospérité Pape Cheikh rendez-vous demain incha allah.